jël mm. ñu bëri nag di ŋàññi ki nga xamante ne mooy ministre bi si euh, communiqué bu euh, mm. dafa mm. xam nga mauvaise communication moom ci nguuru Macky Sall la fekk baax. <laughs> donc ñoom bañ soogee ba léegi da ngaa gis conseil des ministres sax dañ naan rek jëndi euh, communiqué bi daay dañ daan souligner ay fautes yu bari des fois dañu am ay problème de date des fois da ngay jékki-jékki en bi ñu changé ko donc loolu yëpp am na parce que ñu ngi naan ay waxu le 6. donc bëri woon ay dates yoo xamante ne euh, ba am leerul quoi. voilà au 17. voilà ñoom léegi ñu bëgg ñu pour tour euh, lëndëmal xel ñu ñu naan ay histoire de minuit et ay attends da ngay wax 23 heures 5 voilà da ngay wax 23 heures 59 bu fekkee même jour nga bëgg a wax mais boo xasee ba dugg ci minuit rek yaa ngi si le jour suivant mhm. donc yooyu yëpp dañ ci war di bàyyi xel euh, dëkk bi dara jaru fee yàkkamti xam nga man dama doon wax ne état d'urgence bi tey ak couvre bi. pour man waroon nañ ko war mën a préparer am na ñu bëri ñoo xamante ne seen liggéey guddi la am na si taximaan yoo xamante ne guddi lañ daan ëpp lu ñuy liggéey est ñooñu ñu ngi leen bàyyi xel am na ñoo xamante Sénégal dañoo nekk réew moo xamante ne dañuy ñàkk jariñu la ñuy def bu ñu génnul du ñu am lu ñuy dundee restaurant yu bari tëj na liggéeyatul hôtel yoo xam ne liggéeyatuñ te lépp ak bi mu bi ñoo liggéey fenn ñooñu na la ñuy def tey tey ñu si tey dafa bari donc pour man nañu dawal yërmande ndaxte même bu ñuy wax affaire bu bëgg tey fond bi nga xamante moom lañ jagle woon ci première vague bi xaalis moom joxal Mansour Faye xanaa tey ku ne kon nañ na Mansour Faye leer xanaa dañ a tëj comme noonu la rek donc moom aussi euh, ministère bu nga xam mooy solidarité nañu fexe ba dimbal bu ñu amoon ñu agsi si ñu ko yellool tey am na ñu bëri ñoo xamante tey jii seen seen dara doxatul am na benn góor gi ndeysaan mu ne ma dama yor sama ordonnance mënu ma ko jënd ma dama naa xaar sama doom wàcc vingt heures taxi bi mu daa daan jël di ko siiroo guddi gi pour mën a am dàq dépense ëllëg parce que kooku ancien taximan la liggéey na ba doomam yore ay oto mënatul am dépense am donc foofu la ko yaakaar est ce que ñu ngi bàyyi ñu xel donc lépp loo xamante dañ koy def nañ ciy sóoraale askan wi. donc ci def aussi ku kaa yaa ngi gën di yokk. non mun na parce que Sénégal fi nekk nii ñoom Sénégalais yi si boppam ñoo respecté wul dara dès le dell dès le début mm-hmm. oto yaa ngi nii dañuy fees dell rassemblement yaa ngi nii parce que mënoon ne tey mënoo interdiction euh, interdiction rassemblement. école yaa ngi di jàkkoon di jàng xale yi fu nekk la ñuy jugee kii day jugee euh, Grand Yoff ki juge Pikine kii jugee fi ñu ñu rey si benn classe euh, boo demee tey jumaa yi ñi en la la même chose donc pour man mesure bu njëkk bi nga xam moom lañu defoon boo def dara danga koy assumer parce que nguur da ngay ànd ak fermeté boo bëgg a jël ses décision nga assumer ses responsabilités tey demoon na ba deuxième vague bi sax dem na demoon nañ sànq ba euh, mesures yi nga xam war nañ ko jël yeneen régions yi sax dafa dañoo jël procureur dañoo jël préfet yi. ak gouverneur yi ñu saraxe leen parce que loolu laa ko mën a tuddee parce que Macky Sall mënoon na taxaw comme ni mu jëlee woon de dajale couvre-feu Dakar ak Thiès mënoon na taxaw léegi ne c'est toute l'étendue du Sénégal moom moom moom mooy le président de moom mooy le président de la République parce que du ñu rek Kaolack euh, sëriñ si nee na moom bu ñu ko tëjee ñu yónnee ay jinne xam am am loo xam dañ koy xaw a ragal ci Touba wala dara non yow yaay président de la République ni nga daxee ñi nga jëlee décision pour Dakar jël ko pour Thiès jël ko pour Kaolack ak Saint-Louis yeneen. pourquoi nga ne yooyu yenn région na na na na gouverneurs yi jël seen respect seen responsabilité donc léegi lu coow lu am dañ naan gouverneur ñoom ñoo ko jël moom mooy le seul président moom lañ fal. mu voilà. voilà ñu ñu àdduwaat tuuti si wàllum euh, yoon li nga xamante ne mooy policier rajo boobu nekk euh, di wóor si tur Bouba Diallo euh, mu ñu rajo ko ndax lan tenue bu mu sol en moom. Hmm. di di nuyu ñu rajo ko si loolu est-ce que loolu noonu matoon naa leen. pour man nag c'est un peu sévère décision bi dafa sévère parce que je pense que nit ñi boo fautifee boo fautee dañu la war a avertir jox la avertissement wala ñu jël la mettre lu au frigo. pendant deux mois trois mois wala ñu xool mise à pied une semaine liggéey di nga xam ne yow boo solee tenue ni nga war a comporté woo mais dem ba ci dàq loolu dafa ëpp bañ koy dàq sóoraale wuñ ne kii per de famille la sóoraale wuñ ne kii soutien de famille la est-ce que daana def ay yeneen faute wala dara yooyu loolu wóor mais ak lu ci même bu fekkoon dafa doon def ay faute parce que maa ngi dégg après ñu naan woy xaw ma daawul daawul ñëw si liggéey ak lu mu waxee ak nu mu mënta mel rek faute présenté wu na. luy jëm ko dàq naxante moom ba ay six mois nga rappelé ko yooyu boo booy jël décision nga si décision mais daar daar daar nga jël décision ñëpp même bu fekkoon yeneen yeneen motif sax nit ñi dañ naan rek lu mu sukk jubbalu moo tax ñu dàq ko. te léegi man waa ji nee na moom bon après mu ne mbirum Serigne Touba la parce que wax dëgg yàlla lu ñu ko ci may tamit mënoon naa liggéey ba dee du ko am. Hmm. Hmm. Euh, solidarité hmm. solidarité si moom si baax mm. mais euh, dañu naan tout temps rek est tey jii nii ki nga xamante ne dafa sol tenue mm. wax na def lu nu mel malgré sax ñun suñu réewum Sénégal dafa am mm. yenn gëm-gëm yi nga ko def bu fekkee euh, règlement police dafa ne carrément boo solee tenue da war a bi loolu waru kaa def ak parce que bon gis nañ euh, suñu président ab Ablaye Wade daan na sukk si kanamu sëñ Saliou donc président Macky Sall boobu loolu am na mais Euh, boo solee tenue tenue pour man euh, loolu waroo ko rek parce que am na sax benn commande benn homme de tenue bu defoon benn vidéo bu mel noonu di di rappeler nit ñi donc man ma daa dama d' accord ak ak vidéo bi mais décision bu nga xam ne moom la police jël ni moom moo un peu sévère ci par rapport ak acte boobu mais nag mënu nañu ko rek avertir euh, rappeler ko à la règle mu fexe ba xam ni ëllëg si biir kenn ko waroon def tamit lii moo ko ciy fekk bu ñu ko gisee mu defaat ko nag boobaa mais pour man mënoon nañoo gën a daal alléger daan dafa diis trop pour man. Hmm. nekkoon nag euh, meilleur élève Sénégal en deux mille dix huit ak deux mille dix neuf. Hmm. léegi tey jii nii euh, disparition bi wax nañ ko partout dans le monde. Hmm. wax nañ ko si réseaux sociaux et tout ba yàlla def na yàlla nit na ko et que si jàmm ak salaam mu doon nag ay angles yu bëri yu ñu souligné lan wax si loolu. da gis. wax <laughs> xam nga man mbirum jaari saw ñu bari ñu ma si interpellé na ma séeri naa ndax doo ci wax man leen man mënuma see addu parce que koo xam ne gisoo ko. déggoo ko mu wax da nga xëy dégg ñu ne la réer na nga xëy dégg ñu ne la wax na lii pour man euh, nit ñi am na ñu affaire yi yu bëri ñu ngi ko ci avancé man dama ko xaw a contre tuuti parce que xale la euh, am na intelligence ndaw la pour man dañ ko war a euh, assister jaari loolu la soxla mais di gis naa yenn déclaration yenn wax yu ay jaari faram la nekka lu nekk pour man daal yooyu rafetul ak nu mu mënta mel je pense que ni xale la te ginnaaw ba première enquête ba ñu waxee ne écarté nañ man piste criminelle yooyu yëpp man dama ne alhamdulilah donc nañu li def mooy fexe rek ba ndax tànte moom ba revu faire revenir ko bay mu fekkee tamit dafa dem ak dit wala góor nu mu tamel euh, nañ fexe ba revenir aat ko boobu moo revenir ñu fexe accompagner ko parce que ñu bari fii la ñuy jaaree seen àdduna mën na fi jaare yàqu parce que lu nekk maa ngi koy dégg voilà non bari na ay voilà wala dafa bari lu bëri yoo xam ni dégg naa ñu ne euh, dafa dem benn instant concentré wutu si jàngam am mooy neuf jékki-jékki loolu naqari ko mu dem donc bari na ay mbir yoo xamante ne kenn mënu la ci wax dara donc ñun lu ñuy ñaan rek mooy yàlla na ko yàlla wanelaat ay mbokkam si jàmm jaari ñëwaat si parmi nous ak xelam ak xam-xamu bi nga xamoon moom la ko yàlla mayoon mu gën a yokk yàlla assisté ko assisté njabootam parce que tamit sa maman ngi dund ay ay jamono yu métti. récemment il a elle perdu son son papa donc mu jékki-jékki aussi euh, ñu ne ko sa doom mi ngi si coow lu bari même fekkee sax ñoom man gëm naa ni man sa famille euh, am nañ ay information yu wóor jamono ji si jaari sow mais problème dafa nekk problème boo xam nu ñu ko presse bi ak surtout Sénégal nu ñu ko médiatiser ak nu ñu ko dramatiser fi mu nekk nii mooy xaw a pour ñu xool ñu communiquer leen ne leen jaari euh, wër na feeñ na fii la nekkoon wala fii la nekkoon. mais c'est ça man nag foofu foofu lay xaaree pour àddu si man damay xaar jaari génn wax voilà bu génnee nag ne carrément lii ak lii moo taxaw ma dem ma xam ne lii si coobare boppam la boobaa nag naa ne ko il nous faut des excuses publiques lii il faut que nga nga baalu Sénégalais yëpp ak am na ñu bari ñoo xamante ne yaay mère de famille yu bari yoo xam ne tëdd nañ jul toog nañ ba xaaju guddi jug taxaw di ko ñaanal pour mu feeñ donc bu fekkee moom moo demal si coobare fu mu nekk mi ngi fa toog ak tey bakkanam di suivre débat yi nga xam ñi nga am si réseaux sociaux yi di gis ñi nga xamante ne ñu ngi koy ñaan pour mu dellu si mu toog ci pat ru xam ne pat amee nañu amee nañu àq bu dee ministre loolu nag na ñëwaat parmi nu xam ni ci societé bi la bokk am na fi toujours sa place na ñëw continuer ses études fàttaliku li nga xamante ni moo tax ñu may ko bourse d'excellence pour mu dem jàngi ci loolu nag damay damay xaw a ñaawlu sortie bi nga xamante ni kii di Moïse def na ko ci mbirum Ndiary Sow parce que boo taxee na ay jox nañ ko bourse quatre cent trente mille lay par mois moom bu ñu ko waxoon salaire am lu fay ko dina ko neex est que sax loolu c'est vrai te dina tax tey étudiants yi fi nekk dina leen mettre en mal parce que am na ñu bari ñoo xam am nañu ay bourse d'excellence son montant boobu mu wax amuñu ko loolu ça fait presque kuy liggéey salaire sa salaire la donc na moytu étudiants yi ne foofu bourse deux cent dix-sept euros la ñuy am ça fait pas cent mille francs donc bu ne jaaree jox nañ loolu lay fayeeku loolu lañ koy mois donc loolu c'est vraiment euh, dafa dafa mal communiqué sur ce point pour man même bu doon dëgg sax bu jaari doon doon am cinq cent mille sax pour man c'était pas normal muy taxaw publiquement taxaw di ko wax très bien en plus moom mooy en fait moom tàmm na tàmm nañ ko ci moment ah. heure bu defee communiqué gaaf lay wax muy sar heure bu defee communiqué dina wax lu koy xeebee demoon na fi plateau TFM euh, jàkkaarloo xaw ma di wax lu ko lu nekk tout le temps ay ay erreur la da ngay dégg tout le temps ñu naan démenti donc il faut que muy coordonné ak ñi nga xam ñoom la war a waxal di impliqué c'est correct yàlla a le Sénégal y directeur général des Sénégalais de l'extérieur elle travaille avec le ministre Aïssata Tall Sall il faut que muy am benn coordination pour mën di communiquer parce que man je vois que man il il communique très mal heure waxee wax toj donc loolu il faut que mu mu jeex quoi même ci mbirum Boubacar Seye bi aussi la même chose de suite il a pris sa position alors en tant que seen directeur euh, secrétaire d'État chargé des de l'extérieur war nga ci war a mën am taxawaay boo ci taxawee parce que Boubacar Seye doomu Sénégal bu nekk bitim réew la daan liggéey ci wàllu immigration day mel ni doom bien vrai que nag état la nekk te état la ñuy la la ñoom ñoo po bon état état la accusé mais moom dafa war a xam dafa njabootee ñaar bokk na ci état mais tamit Boubacar Seye si njabootam la bokk. day mel ni doom bu ñu dénk ak doom boo jur donc foofu la war a mën a action bu ñu laajee nga ni affaire Boubacar Seye de façon ñun en tant que secrétaire du chargé sénégalais ñi ngi ciy jéem a xool ñi ngi gëstu li nga xamante ni loolu la wax mais nag lépp loo xam ne mën nañ ko ci def dinañ xool nañ ko war a mën a avancer mais de suite donc moom de façon moom moom il a jamais il a jamais essayé de digérer Boubacar Seye ah loolu il faut mu leer. donc man moom xam na ni man samay wax du ma ko nëbb bu ma xamul it dégg yàgg damaa dégg man amul lu may raay raayal donc injustice boobu lañ bëgg mu jeex ci réew mi ñun dañ fee nekk bàyyi suñu alal bàyyi suñu lépp di xeex ngir Sénégal donc askanu Sénégal aussi il faut que tamit ñu jéem am benn maturité bañ ñu leen tour tuur lëndëm xam nga euh, ñu bari dañoo découragé ci xeex ngir Sénégal sénégalais di moise parce que man mii sax dama naan def ay chronique deux mille dix ba deux mille dix neuf daanaka. ay temps jamono ma arrêté ñu ne ma la moo tax nga arrêté ma ne leen euh, sénégalais dañ kaa jarul góor gi na ma bul góor bu ko waxati mukk waxal xeexal ngir Sénégal waaye bul xeex ngir sénégalais ndax sénégalais ak sénégalais kese jaru ko ñun ñoo gën a bëgg caaxaan ñun ñoo gën a bon ñun ñoo gën a mën a yéenante lu bon si suñu biir ñun ñooy liggéeyante ñun ñooy defante lu bon ñun ñooy sonal suñu morom askan boobu jarul sono bu ñuy xeex ñu dañuy xeex ngir Sénégal ngir suñuy doom ëllëg ak suñuy sët ëllëg loolu rek ak wóor bu baax bi nga xam ne moom la suñu maam yi bàyyi woon loolu lañ bëgg nekk di sàmm mooy tax di sonn mais peuple sénégalais wax dëgg yàlla man peuple boo xam ne jii ñi ngi def émission bu intéressant ñi ngi ci wax lu leer mais da xool sénégalais y a peu qui te suivent et si tu parlais des tur de caaxaan des Ouzin Keita des Pawlish mais ñëpp a ñëw seetaan la la ñuy yàlla jagleel. mais day gën mais c'est moo tax ay couvre-feu yëpp réglé wul problème bi. réglé wul benn problème parce que ñun dañoo pare pour màgg askanu Sénégal pareeguñu pour màgg. donc day day laaj kon nit ñu conscientiser. exactement loolu nag moo ñu mooy mooy lu ñu war te xoolal Sénégal fu mu toog bu ñu jëwul ñu ngi wax waxu produit da ngay dem Europe nit ñi liggéey lañ xam mhm. liggéey rek lañu xam mais ñun tout le temps ñi ngi xool nu ñuy dóoree marto ñi ngi xool lu ñuy mën a créer benn affaire pour mën si am am am lu ñu si dóor ba ci la diaspora. y a des yoo xam ne ñu ngi nekk ci ay association di créer ay association yoo xamante ne c'est des gens yoo xam ils ont fait plus de trente ans là échec seen immigration ñu xaar yu jëm a créer benn affaire benn rakos pour mën si voilà pour pour pour si génn loolu rek tey am na si ñoo xam ñoo fi nekk di at di critiquer Boubacar Seye mais c'est c'est ces yoo xam ne daf leen naan dénoncer seen comportement parce que day dañ ay échec déjà ñu nag dëgg rek moo ñu ñor taxaw liggéey ngir Sénégal lépp loo xam muy injustice mu fekkuñu ñu ci réew fii dinañ ko xeex mu fekk ñu bitim réew dinañ ko xeex ñun ci loolu la ñu nekk amuñu benn parti politique faruñu ci benn parti politique ànduñu ak ma sàmb ànduñu ak ma dem Sénégal kese la ñu àndal.